boo xam ne ndab rek moo ñu ci war quoi parce que ñun loolu moo ñu loolu loolu la ñuy xaar ci ñoom quoi parce que depuis des années ñu ngi xaar euh, boobu la gis ñu dara quoi franchement yaakamti nañ Sénégal def def différence daal. est-ce que euh, waa si doy na franchement. dëgg yàlla def nañ prestation bu baax et puis ñëpp a apprécier quoi mais nag il faut ñu gën a yokk ardeur xam nga gën a gën a gën a gën a yokk affaire pour mën a am ndam daal pour man loolu moo ñu ci mën a jéene. affaire affaire de volonté la ko oui affaire de volonté la. Euh, Sadio ak penalty. moom franchement joueur bu complet bu ne war nga war nga war nga joueur dafa war a complet quoi en fait bu fekkee da nga bëgg dara surtout international niveau international il faut nga compléter ci lu bari lu ci mel ni penalty coup franc du genre comme Messi wala Ronaldo yaa ngi seen ñoom dañu compléter ci côté bépp franchement Sadio foofu lañ koy xaar quoi. il faut mu gën a góorgóorlu ci wàllu penalty quoi. mais est euh, Sénégal mën na waaw mën na ko dóor mënu ko dóor parce que lépp sport la rek sport la quoi sport dafa xaw a traité mais en matière de bu dee bu dee joueur ñun ñoo ko gën a ñoo leen gën a baaxle mais lépp daal mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dépendre ci ci volonté bi quoi waaw. Sénégal ban bu mu war a teg pour mën a dóor beneen. ah non dañuy attaqué il faut attaqué parce que beneen boo xoolee daanaka moom amagul benn victoire beneen boo xoolee daanaka ay. dañu war a jàkkaarloog seen i morom am lu ñu gëm loolu moom loolu rek ñu dese mais équipe type lañ yor ñu dàq football ci àdduna bi ñun bokk nañ kon xanaa ñu gëm seen bopp mooy gëm seen bopp xam ne sénégalais. Eh, dëkk la si biir Afrique waaw ñoom nag xam nañ li may wax soo génnee sénégalais da ngay fier ci lépp nag ñun dañu jox gëdd dañu jox cër mais ñi génnut ñoo yàq loolu gars yi dañ leen war a bàyyi ak seen maayin wan leen duñu dara ay joueur rek lañ kese jaaw mi ñuy wax nii ñu ko ëpp bu dee xaalis ñu ko ëppale foofu fi nekk dañ koy wax mu suyee bal bi di dugal mais waxuñ rek di dawal bal noonu dañu war di dugal ñun kuy dugal lañu bëgg. alors mooy li ma la wax rek copain yaa ngi ci ñëwaat ba léegi rek mu ñun la du ñoom mais ñun ñoo leen dul bàyyi ak seen maay ñu dem ak seen bopp wan na leen ay nit rek lañ mais en fait que ba pare euh, tendance bi daf ci am ay sëriñ bii sëriñ baa non ku mel ni xawma laa Salbe Ndong laa nekk ci révision yi der wax di ratataati kooku nee na ko mu noppi yàlla mooy maye ko ak bal nag. bal quoi teg lu leer ci taabal ji mais ay génne nag ak génne cereek yooyu c'est faux amut. noonu dalee football ba tey fi ne liñ gën a bëgg mooy ñu andil ñu coupe beneen moom waru ñoo mën a téye daal ci li ma yaakaar normalement waruñoo mën a téye war na ñoo mën a gagné donte que ne benn bii la ñu am sax ñu gagné gagné demi final gañee final andi coupe bi Sénégal loolu daal la ñuy ñaan.